lu bees ci mbirum centre de redressement bu sëriñ Modou Kara yi ñu duppe ko Kara sécurité am lu toll ci ñeent fukk ak ñetti doomi aadama yoo xamante ne rek teg nañu leen loxo daal di leen placé sous mandat de dépôt bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'observateur ñooñe li ñu leen toppee maltraitance manam xoxatal doomu aadama séquestration ak itam njaay mbirum drogue ak yeneen yoo xamante bi nañu leen ko muy ay infraction yoo xamante ne bi basen giro leen topp nag ba seen giiru muy prison yoo xamante bi rek daanaka danañ ko tëdd seen giiru dund bu ñu sukkandikoo ci boobu boobule xibaar dañoo sànni ab gët ci article 335 bu code pénal bi nga xamante ne bi rekk li mu wax mooy lépp loo xamante ne bi soxal na séquestration jëm ci ay doomi aadama ci diiru fanweeri bés loolee képp kuñ ci tegee loxo daanaka mën nañ laa tëj giiru dund ak itam teg la liggéey boo xamante ne bi rek doo ko sañ a bañ